say service di liggéey di analyser bu ñu lay expliquer di la wax lan ak lan moo waral accident yi yaa ngi wax sànq heure yi ñuy départ yu demee noonu yan yan yan cause mooy dëgg dëgg dëgg ak liy waral accident yi ci Sénégal. Euh... souvent dañ ñu rek oui les les causes sont humaines mais mais de de quoi s'agit-il exactement. merci xam nga euh, dañ naan ñetti mbir la ñetti yëf la mm-hmm. yoon wi daamar gi. ak dawalkat bi ma yokk ci ne peut-être am na benn ñeenteel mooy lépp lu jëm ci wàllum administration bi oui. de la délivrance des titres de la formation de la délivrance des titres maanaam ci wàllum tàggat dawalkat yi ba ñu am seen permis waaye tamit wàllum contrôle routier bi donc c'est un cocktail boo xam ni mayon bu ci doxul rek sécurité routière amul waaye nag dafa fekk ne fii daanaka quatre mayon yëpp amandoo problème mooy lan mooy curricula bi ñuy jàngalee dawal yéen ñi fi am permis ñëpp nangeen jàngee dawal. auto école yi rek bi ngeen di euh, def passé examen nangeen ngeen passé examen. yéeg wàcc euh, créneau ñu ne la. dàq nañ la ñu ne la wàccal dàq nañ la après nga am noo def xëy na jot sa permis. bu gaaw am ñoo xam ne toog nañ seen bureau permis fekk leen fa. donc ci kaw tali bi lañuy jàngee dawal loolu mooy li am. Mhm. amuñu donc ñooñu mënuñoo xam euh, code de la route. loolu dafa bokk ci mesures yi nga xam ne diagnostiqué nañ ko xam ne y a problème de formation parce que la même personne su demee Europe bëgg permis dina ko tarbi yu benn ba ñaari at boole ceeg fay ci lu bëri parce que gis nga permis da koy xoolee comme baccalauréat rek wala master wala leneen rawatina nag permis transport da ko war a jaamu am ko ci anam yoo xam ne xam nga ne lii waroo koo ñàkkaat ala kulli haal waaye tamit xam nga ne lii dafa am lu muy symboliser gis nga un un chauffeur professionnel permis bi dafa war a am mooy diplôme am donc kooku dafa war a am formation bu dëgër waaye mu am passage examen bu sérieux moo xam code bi la moo xam conduite bi la après aussi le reste moom mooy euh, euh, li koy déterminer mooy euh, le contrôle routier entre autres oui. mais kon formation bi moom sooxe na lool. loolu moo concerné. moo tax moo concerné nit ki dawal. waaye joxeem permis yi tamit lu ñuy challenger la ci service des mines lu ñuy surveiller la lu ñuy tëggaat la lu ñuy soppi la parce que baaxul mbir yi dañ koy wax loolu. samay service la nañ ko fi dem nañ sax ba jof ki xaw ma kap kaaraange xaw ma ne dañuy. samay samay la le problème du délivrer permis bi. permis yi numérise nañ ko sécuriser nañu. voilà le problème mooy qui doit. être détenteur d'un permis kan lañ ko war a jox voilà ma jox la benn exemple booy wuti permis sa bët dañuy xool xooluñu sa yaram de waa léegi man su fekkente ne damaa dem di wuti permis ñu xool samay gët baax nañ fekk man dama am ay jël ay jël mooy di daanu di daanu waaw di jékki di am en tout cas benn feebar boo xam ne xëy na mën na ma tàqaleeg sama sago oui c'est possible xam nga lu mën a nekk la la preuve boo demee xool dans les sociétés les même chauffeurs les mêmes transporteurs mhm. transporteur bu ci am ay bus am ay camion amaale ay citerne di daw ci secteur hydrocarbure bi xoolal chauffeur yi nekk ci citerne bi différence bi ak ñi nga xam ne ñoo yor camions yi wala ñoo yor bis yi wala ñoo yor yeneen xeetu oto yi parce que ci citerne bi ci domaine boobu mhm. wala ci secteur minier bi ñoom dañoo teg seen ay exigences yoo xam ne permis boo mën di am boo ñëwee dañu lay former jox la seen permis bopp te formation boobu noonu formation bu tar lay doon. ñu jàngal la conduit défensive fii du la jàngal daanaka conduite défensive parce que taal oto dawal yomb na. Mhm. jëlee ko fii yóbbu waaye obstacle comment tu te comportes ce qu'on appelle la conduite foofu la problème bi nekk. donc à partir de ce moment ñu war a xoolaat donc lan moo nekk ci formation bi auto école yi. Mhm. kan lañu war a jox agrément auto école. ñu réguler ko mu am une surveillance accrue boo xamante ne nii ministère moom moo am responsabilité boobu comme ni ñu koy defee ci école yi wala comme ni ñu koy defee ci euh, euh, cabinet de santé privé yi nga xam ne ku ci remplir retour ay critères am ñu retirer sa argument sa sa agrément digitaliser système bi parce que soo demee dans les pays développés nga war a passer examen code qu'est-ce qui va se passer mooy da ngay jël rendez-vous parce que jàng nga sa code ba pare nga jël rendez-vous nga dem boo demee doo wax ak nit machine ngay waxal nga choisir sa langue jàkkaarlook machine bi mu lay poser ay question di la won ngay tontu. ngay tontu boo réussirul ala kulli haal doo mës a am permis donc di nga ko jàng ba mokkal ko donc code de la route bi. Mhm. à partir de ce moment nag nga dooraa def la conduite. d'accord oui donc dinañ ma wax ne ah fii kat Sénégal aménagé wuñ fi ay parcours pour def examen yi ni mu ware justement daa bokk ci suñu ay projet tabax ay centre de formation et de passage d'examen comme ni ñu nekkee di liggéey ci les centre de contrôle technique moo may permettre ma ñëw ci oto bi maanaam le matériel roulant bala ngay ñëw ci oto bi El Malick xam nga chauffeur bi mën nañ ko former jox ko permis mu am ni mu war a am yëpp waaw ah. dafa am benn seetlu bu simple la ah, sooy xool ñi nga xam ne ñooy transporter doomu aadama yi du mën a ñëpp parce que man sama papa chauffeur mais ñu ci bari ñoom pap euh, boo leen xoolee doo leen ñee doo leen yéene affaire doo am fitu jox leen sa bakkan je veux dire par là da nga gis xale bu yor oto boo xam ne lu mat 70 personnes ñu ngi ci biir mu takk tubéy ji fii teg waali seek ba mu sës yor kaasu kafeem teg ci yoon wi. est ce que est ce que yooyu oui ma ne fekk 75000 lañ koy fay aussi. oui est ce que ce genre de comportement là am na luñ ci mën. le contrôle routier. moo tax dinaa ci ñëw dama ko bëgg a pàcc pàcc. allez-y allez-y. ak le paiement. liñ leen di fay transporteur. waaw ah, non loolu yëpp dinaa si ñëw xam nga xam nga damaa organiser état généro dinaa ci ñëw. Mhm. état généraux yi yàmb na daanaka dinañ ci dem fin du mois. d'accord mais li ma bëgg a wax ci facteur humain boobu. parce que moom mooy li tax ma commencé ko mooy facteur bi pour pourcentage bi gën a mag ci facteur accident yi. Mhm. parc bi vétuste na tali nangam nangam mais facteur humain moo ci gën a mag. nit ki ci boppam. accident yi mujjee am yépp dépassement. dangereux dépassement dangereux excès de vitesse donc non respect limitation de vitesse waaye di doubler foo warul doubler pratiquement moo tax parce que c'est des accidents yoo xam ne yëpp boo xoolee euh, dañu daje yooyu ala kulli day am nu mu day day euh, day métti day métti bi ci mujj mooy loo xam ne texte yi code bi da koo tere maanaam transport mixte mhm. nga yab ay nit yabaale gaz. loolu xel sax da koo nanguwul nag. même mais man dafa am loo xam ne sëñ bi. Mhm. da toog ba mu yàgg nga ne ñii est-ce que la moo xew. tu te poses toi des questions parce que dafa am loo xam ne xel xaw ma ndax chauffeur bi moom gaz bi di ko ataaya xaw ma ndax client moo duggaale gazam. Mhm. donc euh, loolu dafa nekk loo xam ne moo ci gën a fës. mais boo jëlee matériel roulant bi maanaam oto yi wuy hmm. oto yi dañu màgget dakaar la la ñu ëpp fu ñuy defee contrôle technique oto yu bëri dina leen romb genn oto bi nu mu def ba am visite technique amul visite technique la plupart defuñu ko ndax deux pour cent minimum des véhicules yi yi ñuy yi ñuy immatriculé Dakar service de mines gën na leen gis. mais mais on est plus dans routier maa ngi ñëw. mooy ñiy daw ci banlieue beeg nangam na oto bu am 40 ans 45 ans mag mag la président de la république <laughs> ñu ne renouvellement park ma ne ah état day du bañ renouvellement parc mais sëñ bi lu tax suba tailleur yi du ñëw ne dañ nañ ñu renouveler suñuy machine suñuy machine mécaniciens yi ne nañ ñu renouveler suñuy outil yaa xëyti boo choisir def transport nga jënd sa juróomi oto wala sa fukki oto wala sa benn oto mais danga war a am un business plan bu lay permettre nga am un plan de réinvestissement. Mm-hmm. xam ne oto bi kat dina amortir dans cinq ans dama ko war a remplacer dans dix ans dama ko war a remplacer donc damaa war commencer épargne bu may permettre après ma mën a def levée de fonds. pour mën a réinvestir ci beneen oto. ainsi de suite sama business développement gën a moderne que oto yi aussi c'est comme merci mm-hmm. te xam nga li tax nga wax ne mën na nekk. d'autres sont en train de le faire. dans ce ñaa am na ñeneen ñoo xam ne dañoo am un système de renouvellement donc renouvellement parc normalement investisseur bi moo ko war a def par contre état war na leen accompagner moo xam ci ay garanti ak yu ni mel comme niñ nekkee di ko def ci taxi yi ñuy joxe ci bus yeeg et cetera état mooy nekk di leen accompagne teg leen ci yoon teg leen ci cadrage bu baax mais il faut ñu former leen aussi organiser leen ba ñoom ñu xam ne transport bi bu ñu ko ñongalee mën na dox parce que ci seen biir am na ñoo xam ne dañoo choisir investir sur des bus moderne te mi ngi dox. jël ay chauffeurs professionnels former leen jox leen ay tenues di leen fay salaire di leen fayal IPM di leen fayal santé et cetera chauffeurs yooyu dañoo fier ci li ñuy def donc ñoom course suñu dañ leen a dañ leen a wax demal ma telle heure lii ngay daw yeggal dikkaat seen ak payoor dépendrul ci ñaata aller retour lañ def moo tax suñu combat xëy na ki ci gën a jariñu chauffeur bi la parce que dañu bëgg dem à ce qu'on est des chauffeurs nga am sa carte professionnelle boo xam ne tey yow bu ñu lay recruter dinañ la fay lu ko jar comme benn chauffeur administration et cetera xam naa ne temps bi na bëri mais gis nga question bi dafa important non non duñ la dagg ci oto yi euh, ci oto yi pour régler loolu mhm. le dossier pour installer 17 centres contrôle technique moderne dans toutes les régions le dossier est déjà prêt ay sénégalais ñoo koy jël différent sénégalais instauré ko Kaolack dina am Thiès dina am ñaar Saint-Louis dina am Sédhiou dina am Ziguinchor dina am ah, ba pare guichet unique c'est-à-dire que sa DK bi wala sa LG bu Louga bi bu la sa visite technique naree fekk Ziguinchor amatul bind dérogation comme par exemple auto chantier yeeg yooyu. Mhm. da ngay dem Ziguinchor nga def sa visite technique. dinañ ko gis. même bu fekkee DK ko gis au niveau central. Mhm. mu nekk centre comme bi nekk fii Dakar mais délocalisé dakaar dina am deuxième centre. Mhm. à Diamniadio su ko defee laa benn oto mënatul rëcc waaye tamit moto yëpp dañ ciy dugg. moto yi daw ci yëpp moto yi yëpp dinañ leen immatriculer dinañ def visite technique dinañ am assurance. ca moto du lépp luy daw ci kaw tali te dañu te dinañu am permis ah tëbu ñu rek ne dañu leen di arrêté de dañ leen di hmm. accompagner on va donner des des deadlines boo xam ne dinañu formé wu dinañu am permis hmm. dinañu am badge ñi ciy def livraison ñu identifier leen ñi ciy def euh, euh, euh, comment dirais-je ay transport personnel parce que am na ñu koy utiliser comme véhicule personnel ñu mën leen identifier parce que boo ko deful ñi gàmm ñi raas dem bokkul gis ngeen yi ni mu bëree te ñëpp loto lañ koy defee mhm. donc ak aussi hôpital boo dem fekk fa saal Jakarta ñun état bu ñu waree forcer askan bi nga xam ne fa la ñuy yóbbu nit mais parce que ay trauma rek la daanaka ku ci def accident boo faatuwul tamit dootoo amati njëriñ absolument à partir de ce moment ñun état su fekkente ne dañu war a forcer lenn ci askan wi ngir aar leen dañ koy def parce que mooy suñu responsabilité parce que dañ ñu koy laaj yow man naka la ñu yoree woon askan wi mm-hmm. donc à partir de ce moment mm-hmm. li ci war yépp je dis et su ma leen ko waxee mm-hmm. incha allah bu ñu fi dund gi bàyyee dañ koy def